asalaamaaleykum internet Sénégal ndax tey ñu dalal fi euh, internet yi des waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum internet yi scotché ci Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant. man la Souleymane Ndiaye ñu gën ma xam ci turu artiste Julio l'Absolu. bon Julio l'Absolu c'est un jeune artiste de vingt cinq ans bu commencé def rab depuis 2013 donc mun naa ne 2012 parce que période boobu lañu doon wax ndax année blanche day am mu métti woon lool donc loolu poussé ma ba ma commencé jël micro bi après ñu commencé. def benn group boo xam ni ñu ngi ko tuddee woon Elbiz élément bizarre man defoon ma formé woon ko ak sama benn xarit bu ñuy woowee Salzo donc ñuy avancé doon prôner aussi le rap conscient depuis le début par la suite euh, je me suis mis dans ma carrière solo ma commencé di dem samay yëfu bopp man kese donc bokkoon ci benn concours bu tudd Citizen Mike Citizen Mike ma demoon ba final donc defoon fa tamit euh, lu waral ni ñi ñu bëri ràññee ma foofu donc après maa ngi woon ci benn label bu tudd Tubi Music parce que dama doon def ay freestyle doon ko dugal ci internet bi Facebook ba am benn rapport bu tudd Aara Cannibal gis ko partagé ko mouvement hip hop bi ci lañ ma commencé xam donc bi loolu weesoo ma génnee sama première mixtape en 2018 tuddee woon ko Urgence donc Urgence nekkoon benn produit boo xam ni c'était un produit de seize titre donc ma ci doon wax tamit sur les maux de la société les maux de l'Afrique wax côté politique social ak yu demee noonu après urgence euh, ñu génnee beneen ipi bu tuddoon 7 minutes chrono boobu ñu ngi ko génnee fin 2018 donc ci décembre bi après loolu donc ñu ko continuer suñu carrière suñu bonhomme de chemin ba ni ñuy bindee suñu son tarixa ñu génn le 20 mai 2020 après loolu ñu continuer ba voilà actuellement bon d' abord euh, c' une passion parce que man dama doon déglu bu baax Gaston Gaston man mën naa ne mooy sama référence ci hip hop euh, sénégalais donc texam dama ko doon parcuriser te neexoon na ma à la base aussi bi depuis seconde dama bëggoon pro la littérature bëgg la poésie donc dama doon gëstu lu bëri ci loolu bëggoon di bindantoog yu demee noonu donc loolu dafa yàgg nekk ci man mais je me suis dit euh, voilà war naa mën a wax ci li nga xam ni moom mooy xew ci sama dëkk li nga xam ni moom mooy xew ci Afrique donc nan laa koy waxee je me suis dit que je ne pouvais pas être poète parce que voilà euh, rab laa gënoon bëgg moom laa doon gën a déglu te vu que dañ ko doon fowantu aussi doon ñu naan ñu booy mun ngeen def carrière ci affaire bi donc on s'est mis dans le rap commencé bind ay textes je me rappelle sama premier texte bi ma bind sama histoire ñaxtu la tuddoon donc benn texte la boo xam ni euh, maa ngi doon wax ci affaire société beeg yu demee noonu donc ci noonu la engagé woo ci rap parce que on avait un message à faire passer ñi nga xam ni ci sama génération lañ nekk aussi ñu mun a déglu lool te on trouvait que vecteur bi gën a gaaw mooy ñu utiliser le rap. Euh, bon artiste euh, bu génnee son moom dafay def promotion bi ci war c'est vrai que ñun lu nekk am na ciblage parce que bi ñu génnee suñu premier produit on s'était dit que nañu def le tout ba nga xam ni mouvement hip hop yëpp dinañu xam ñëpp ñu respecter parce que ñun ci loolu lañ gën a focus euh, dañuy focus bu baax sur le respect te produit boobu bi mu génnee aussi gis nañ ñu nominé ko ci Galsen Hip Hop Awards mu bokkoon ci finaliste yi boo jëlee ci parmi des milliers de Euh, rappeur yu nekk Sénégal ñu jël sa produit mu bokk ci trois finalistes Galsen Hip Hop Awards je pense que loolu am nga ci soutien public bi am nga ci aussi soutien mouvement bi donc produit boobu noonu def na son bonhomme de chemin léegi nag artiste bi li mu mën mooy def ay son euh, jagleel ko public bi après nag liy taal nit loolu ci yàlla la non parce que boo xoolee ñun du ñu bëgg di topp souvent li mouvance bi di def ñun depuis le bi noonu lañ mës dañuy bëgg a def li nga xam ni c'est nu quoi te bëgguñu tamit nit ñi duñu xam parce que dañ def safaan wala dañ def leneen loolu bëgguñu ko ñun dañuy bëgg bu ñuy nit yi di xam ñu xam ñu ci yoon bu baax ba nga xam ni dara du la mën a détourner parce que dañ koy gis le plus souvent ñoo xam ni dañ leen di proposer dara sax mënoon nañ dem def benn son pour ay lobby wala organisation ñu financé la xaalis alors que voilà non non euh, musuma am kii boobu noonu mais je donne juste un exemple pour diir que ku bëgg tey jii nii bañ boo bëggee am xaalis sax am na foo xam ne boo fa duggee da am xaalis mais ñun bëgguñu loolu dañu bëgg loo xam ni se conscient day nekk ñun ku ñu ciy fekk dañ ciy am un vrai public donc du ñu am ñoo xam ne dañuy topp parce que voilà dañuy topp tendance wala mouvance non clash sax ci hip la bokk te bu ñu waree clashante dañuy clashante bi ñu ko waree def dañ kaa def mais sukkandiwuñu ko ci pour ay siw wala affaire yooyu noonu. Mhm. bon euh, du ma wax ay kii laa mës clash wala kii mais ñi may ñi may ñi suivre ñi may suivre xam nañ ni bon ñun à chaque fois bu jaree prendre position dañuy prendre position te bu jaree wax dara dañ koy wax bon rap galsen euh, am na ñuy def lu baax am na ñoo xam ni peut-être du ma dañuy def lu bon ñu ngi def ni ko sentiré donc loolu diversité boobu noonu moom mooy def charme hip hop galsen te voilà ñi doon def euh, le rap conscient ñu ngi koy def ba léegi donc keneen tamit am na ñeneen ñuy def leneen te loolu mooy def euh, charme bi quoi. man boo xoolee samay texte sa parle plutôt à la société donc c'est vrai que damay def ego trip damay def lépp parce que loolu munoo ko génnee ci rab rab dafa am ego dafa am clash bu la neexee nga jël thème wala bu la neexee nga jël euh, position bu la neex mais man li ma gën a focus mooy ay textes yoo xam ni ça parle à la population yoo xam ni peut day éveiller les consciences mais damay def ego damay def clash damay def leneen ak leneen quoi. voilà voilà. je pense que Morso Tarixa ñu ngi ko maa ngi ko bind en parce que maa ngi doon gis loo xam ne neexuma donc que ça réseaux sociaux yi mooy gis yenn fanatique taalibe yi ñi nga xam ni dañuy woowee seen bopp soit fii laa bokk wala fole laa bokk di saagante seen biir wala parfois nga gis benn site jël seri sëriñu jàmbur wax ci lii la wax wala affaire yooyu noonu après bàyyi commentaire yi nit ñi di ko saaga wala affaire yooyu mun doon loo xam ni man ça ne m'a pas plu neexuma parce que jullit la te tarixa dafa bokk ci li nga xam ni moom mooy yor euh, stabilité Sénégal donc ma bokk ci ñi gëm ni Sénégal nit bu ko bëggee jaxase dafay jaar ci tarixa pour jaxase Sénégal te man en tant que artiste ci sama rôle d'alerte aussi je pouvais pas rester indifférent euh, face à cette situation c'est vrai que am na ñoo xam ni du ñu bëgg di ci prononcé wu wala yu demee noonu mais man je suis un am na ñoo xam ne dañ may déglu te am na ñoo xam ne bu ma waxee ak ñoom sama message mun na yegg ci ñoom peut-être mën na leen changer loo d'avis wala yu demee noonu donc je me di il faut que je prononce sur cette affaire donc ma bind ci tarixa pour rappeler aux jeunes ñi surtout ñi nga xam ni sama génération lañ que yi ay yoon lañ waaye ñoo bokk fi ñu jëm te waruñu toog di saagante ndax ay tarixa wala affaire yooyu ku nekk ci yoon bi nga nekk boo ci defee lu baax je pense que benn jëmukaay bi nga la euh, lañ jëm muy ci buur bi te je pense que nit ku nekk mën nga nekk fu la neex ba pare nga yegg ci euh, ci fu baax fii quoi loolu laa bëggoon expliquer ci son bi donc je me suis dit naa ci def son bind ci benn way woo sama ingénieur de son en même temps sama beatmaker donc mu composé affaire bi man ma bind texte bi donc après euh, mënuñu ko woon génnee 2019 parce que voilà euh, tous les moyens nete pas là donc on di dit euh, nañ ko garder parce que ñun boo xoolee dañuy def ay sons yu bëri yoo xam ni dañ koy garder mais le plus souvent lii doon suñu avantage mooy vu que dañuy wax ci loo xam ni ay vrai problème société bi la mën nga ko garder vingt ans après boo ko génnee day mel ni tey nga ko bind parce que ay problème la yoo xam ni du du jóge fii quoi donc 2020 le 20 mai 2020 la ñu mujjee génnee tarixa donc mettre ko à la disposition du public. ay retour yu positif franchement am na sax ñoo xam ni ci ay këru diine lañ bokk ñoo xam ni dañu lay woo. malgré voilà nekkuñu ay nit yoo xam ne peut-être dañuy déglu musique mais dañu déglu dañu prendre le soin déglu tarixa parce que gis nañ message bi ci nekk donc nit ñi aussi interpellé ma ci euh, félicité ma ci tarixa bu baax te ñun aussi je pense que jotoon nañ ci wax jotoon nañ génn ci biir euh, média yi expliquer je pense que nit ñi accueillir woon nañ ko positivement quoi. Mm-hmm. je pense que en étant un artiste man xam naa ni tout le monde ne pas être d'accord avec moi te loolu aussi je l'accepte parce que je suis très très démocrate damay nangu opinion ku nekk mais damay inviter toujours nit yi euh, voilà am na ñoo xam ni peut-être dañ lay wax loolu mais buñ day fekk seetaanuñu intégralité vidéo bi ñi seetaan intégralité vidéo voilà voilà ñi seetaan intégralité vidéo bi yëpp après dañ ñëw nee la je m'excuse comprendre nañ fi ma bëgg a dem te loolu aussi loolu mooy artiste un artiste waroo nekk rek di xalaatee fi ñëpp di xalaatee da nga war a xalaatee au-delà de ça te loolu moom moo indi polémique bi te voilà ñi nga xam ni peut-être comprendre lu ñu wala affaire yooyu dama leen dama leen kii parce que fois la question de fois la euh, c'est très sensible donc c'est très normal mais man leer na ma ni bu ñu seetaanee vidéo ba mu yegg dañuy comprendre sama philosophie comprendre fi nga xam ni foofu laa bëgg dem. waaw comme loolu laa wax léegi. Mhm. Mhm. waaw waaw def naa si jàngat mais dafa am fenn foo xam ni man je pense voilà dafa am fenn foo xam ni je pense que ci ci sooru artiste bi lay revenir parce que artiste buy xalaat moom mooy am inspiration am xool nan lay bindee lii nan la koy defee nii nan la koy defee lii d'autant plus que man je n'ai rien créé je rien inventé li ma wax ci son bi yëpp ce ne sont même pas mes propos donc ce sont les propos ay nit yoo xam ni peut-être ñu ngi dem ci média bi di ko wax wala ñu ngi dem ci réseaux sociaux yi di ko wax ay nit yu nit ñuy xam donc du ma dugg dans les détails mais vu que artiste moom moo ko wax donc euh, voilà je pense que damay accepter tamit yenn kiiwu yi quoi mais man xam naa li ma li ma si jublu te xam naa quitte avec ma conscience que nii euh, defar moo ma si ju moo si dugal donc après nag mun nga di defar sax am ñoo xam ne dañuy taxaw fee di la sànni xeer loolu garaawul yàlla sax day am ñu koy sànni xeer. d'accord alors bi jàll na dox na et puis da nga am lyrics boo xam ne dafa leer maanaam ku lay déglu day xam moo tax boo wax. Mhm. bon réaction de surprise la mën a nekk parce que ñun euh, kuy def son pour woote à l'union doo mus xalaat ni dinañ la ci yóbbu ci justice wala affaire yooyu mais après da ngay comprendre que peut-être tu es incompris ci ci benn domaine bi loolu moo waral ñu ñu ñu woola ci te buñ ñu ci wooyee aussi en tant que responsable dañuy dem wuyu parce que xam nañ ni defuñu dara de grave te voilà kenn mënuñu si teg loxo parce que suñu suñu intention ñëpp xam nañ ko. waaw bon euh, je pense que euh, chef d'accusation bi moo nekkoon euh, nu mu tuddati outrage au ministère de culte et intolérance religieuse donc loolu lañu loolu lañu doon wax mais. non non non non loolu loolu on ne le sait pas. te il de a ay affaires yoo xam ni peut-être ci biir dossier bi la ñun on ne veut duggaat ci dugg ci biir donc xam naa ni bu jaree leeral ci kanam dinañ ci leeral incha allah. Mhm, mhm. waaw. waaw euh, bi ñu woowee man dama euh, bi ma yëgee affaire parce que j'avais information le samedi. que ni voilà sa euh, son dugg na ci biir kii tey procureur jot na ci donc ñu wax ma ko man bi ñu ma ko waxee tamit euh, je suis très organisé ma woo sama staff ñu tase sama kër manager donc ñu tase fa ñu waxtaan ci mu ne leen ah affaire yi nii la demee donc nañ ciy jël suñu précaution ba pour préparer wu donc loolu jour boobu sax boo xoolee dañu guddee pare ma fanaan fa donc bi ma xëyee ci ëllëg si euh, sama cousine woo ma nee ma yow waa DIC ñu ngi fii donc man bi ma kiiyee ci saa si après euh, bi mu raccroché sama yaay woo ma nee ma lan nga def affaire yooyu ma ne ko maire non def ma dara maa ngi ñëw donc ma jël oto dem foofu noonu quoi bi ma demee après ñu laaj ma paa bi mère bi c'est très normal donc ma wax leen ma expliquer leen ba pare nee sam papa ñëwal ñu dem wuyu ji léegi donc euh, ñu ma ak sam papa ñu dem quoi bi ma demee dañ ma entendre commissaire bi entendre ma donc biñ ma entendre ba pare après vu que euh, procureur moom moo autosaisiru c'était très normal ñu ñu kii la foofu. bon je pense que le samedi. Euh, ci laa jot sax menace de mort am ku ma woo. Ah. di nee ma voilà di menacer ak affaire yooyu après. subitement bon euh, ay menace de mort rek je pense que menace de mort ça c'est clair. et après ci lañ ma woo ci la ma keneen woo nee ma sa am na sa vidéo bu ñu dagg def ko ci TikTok mu ngi circuler te yegg na ci procureur affaire yooyu noonu donc man comme un artiste organisé ma woo sama staff ñu toog def ci réunion parce que c'est une question sérieuse donc ñu tase sama kër manager je pense que jour boobu sax falaa fanaan donc bi ma fanaanee ma xëy euh, sama téléphone moo ma yee sama cousine nee ma waa DIC ñoo fi nekk di la seet après man après sama xel dem ci lu démbali quoi donc après ma jug sangu euh, dem suñu kër donc bi ma demee euh, rassurer la famille dooree dem wuyu ci quoi. mais menace bi tiitalu la amul beneen bon euh, c'était quelque chose boo xam ne commencé woon na ma jege c'est-à-dire parce que mu ngi wax waxu Malibu. te ku wax Mali boo xam ne Golf Sud te man fa laa dëkk donc loolu moo waral du question de titre wala affaire yu demee noonu sax parce que nit ku nekk loola war a dal dina la dal mais aussi euh, fagaru ak moytu day baax donc moo waral ma dem sama kër manager moom sax bi moo ko waxee dafa ma woo nee ma ñëwal fii vu ko foofu on est toujours entre potes ñun ñoo fay nekk c'est c'était beaucoup plus sûr quoi donc ñu dem foofu toog fa pour mu nekk kii quoi non jaaxaluma franchement parce que c'est un son boo xam ni trois ans après nit ñi mën nañ ci waxaat parce que voilà li ma ciy traité c'est très sérieux te je pense que nit ñi aussi dégg-dégg boobu lañ ko war a analyser prendre ko noonu mais tout le monde n'est pas artiste am na ñoo xam ni dégg ay déglukat lañ te dama leen damay comprendre quoi donc c'est un son boo xam ni li ma ci wax du mës du mës a deñ quoi waaw énormément de gens ñu bëri jàppale nañ ma si parce que man à ma grande surprise dama gis affaire bi mujjee nekk une affaire nationale donc sénégalais yëpp di ma won seen soutien donc ñi nekk aussi ci mouvement hip hop bi ay peut-être ñeneen ñoo xam dañ fi nekk sax di xeexal diine lislaam donc gis naa ci ñu bëri te loolu moom du ma du ma taay ci di leen remercier. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. school yi lañ mhm. que je pense que ñële lañ gën a gis comme ni nga ko waxee mais ñëpp wax nañ ci ñi ma bokkal génération aussi ku ci nekk wax nga ci ñi nga xam ni dañu am ay link direct ak man woo nañ ma aussi donc euh, ñële ñoo dem ci plateau yi parce que ñoom ñoo amoon occasion bi mais ñeneen ñi aussi def nañ ko à manière ci seeni i compte ak yu demee noonu ñi ma bokkal génération pratiquement ñu bëri fës nañ ci quoi. si waaw parce que amul dara loo xam dañ ko si regretté la moo tax ma wax loolu parce que je reste sur position que dama def son pour woote à l'union donc nag boo nekkee un artiste rappeur di def benn musique bu engagé tu dois te préparer davantage ci lu nekk moo tax ñun euh, on ne regrette pas d'avoir fait ce son. parce que ñu bëri comprendre nañ tey fi ñu bëgg a jëm ba pare ñu bëri comprendre nañ aussi que ni tarixa yi ay yoon la waaye dëkk bi ñu jëm benn la. bon franchement man ça me ça me faisait pas grand chose franchement méttiwu métti na ma mais nekkul loo xam ni peut-être dama toog foofu noonu di xalaat walla yu demee noonu. yàlla mi ma tiim xam na ko donc je l'ai pris de manière posée te xam naa ni defuma dara boo deful dara même bu ñu ma tëjoon cinquante ans du ma du wàññi dara parce que xam naa ni li ma fi tëj peut-être incompréhension la te bientôt bu gars yi comprendre dinañ dina yow yaay di nga génn avec la tête haute quoi. ñu bëri nag waaw c'est vrai que ñu bëri peut-être ci affaire bi lañ ma xamee euh, ci problème affaire u tarixa bi te comme li ma wax teel a début rek man ku may xam aussi daf may xam par rapport ak sama engagement donc du ma wàcc sama yoon du ma ko changé ñëpp ñi ma war a xam dinañ ma xam. waaw c'est tout à fait normal mhm. mhm. c'est. c'est tout à c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal. non. <laughs> Mm-hmm. waaw boo xoolee identité aussi euh, c'était un son boo xam ni il fallait que ñu def parce que ñun mosuñu toog on des artistes rappeurs donc li ñu war mooy dugg studio di bind donc di di wax quoi te je pense que son identité aussi day day refléter exactement Julio quoi. Mm-hmm. donc dama ci wax exactement man man may kan donc pour nii nga xam ni peut-être comprendre guñ ma donc wax ci aussi euh, sama philosophie ak ni nga xam ni noonu lay taxawalee te gars yi bu ñu seetaanee vidéo bi dinañ xam. présentation hmm. voilà sama biographie la ak kan mooy le vrai Julio. Julio hmm. hmm. waaw bon j'ai parlé de moi-même. j'ai parlé un peu ci ay affaires société bi. maa ngi wax benn euh, mesure sax naan euh, mbedd kenn ëmbalu ko ba muy am enfant de la rue nit nekkatoo dara bu dee soxol daa am maladie loolu je prends la cause des enfants de la rue parce que man <laughs> damay gëm ni nit xale place am du ci mbedd quoi donc loolu donc ay genre affaire yu mel noonu laa fa wax donc wax exactement kan mooy le vrai donc wax naa aussi brossé naa ci sama jaar-jaar ak lépp te bu ñu demee seetaan vidéo bi qui est dinañ dinañ ko gis quoi. lan ngay séntu je pense que maa ngi koy wax sax sama benn son légende laa bëgg a nekk. ci hip hop galsen te pour nekk légende man pour man il faut nga bàyyi fi lu consistant lu solide boo déggee lu tax rapajo chaque jour nit ñi toog di la wax ay rapajo. wala ay yeneen grand yoo xam ne ñu ngi fi parce que seeni texte ba léegi boo ko tegee day mel ni tey la donc man loolu laa philosophie boobu laa am ci hip hop quoi te dama bëgg di mel comme ñooñu donc ba nga xam ne ci analu hip hop Galsen dañ du jugee ne sa tour quoi. nouvelle ko si waaw fil naa ci ñu bëri parce que def naa si ñu bëri euh, featuring ak ñu bëri donc ñoom ñëpp ñu bëri dañuy déggoo quoi. ñu si bëri dañuy déggoo fil naa ci ay nit yu bëri quoi. ok mhm. am ngeen entente bu baax bu baax. Mhm. waaw man maa ngi dëkk Géejawaay. plus précisément Golf Sud. Mhm. waaw bon ñoom ñëpp on se muy ñoom ñëpp on se que muy Is que muy as the best ñi dëkk ci biir Géejawaay on se connaît yor nañ sama numéro yor naa seen numéro dañuy déggante parfois donc ñoom aussi taxaw nañ ci taxaw bu baax waaw. Sénégalais gis mhm, mhm. c'est vrai bon damay wax ni remerciement bi njëkk day day ñëw ci Sénégalais yi parce que son bi pour ñoom la woon te gis naa ni combat bi aussi ñoom dañ ci taxaw taxaw bu baax donc remercier aussi samay euh, mbokk artist ñoom aussi gis naa seen taxawaay bu baax remercier sama staff samay membre famille aussi di leen remercier bu baax di remercier aussi Amnesty euh, International donc surtout aussi euh, di faire un big up euh, à la DIC les gens vont se poser des questions mais je dirais que j'ai été très bien traité et ils m'ont pris aussi comme un frère parce que jour bi ma ñëwee sax ay chaussures fermées laa soloon donc benn adjudant moom moo ma may daal carax ñoom ñoo ma jëndal añ ñoo ma doon toppatoo te voilà je me sentais pas comme étant nit bu ñoo xam ni dañ ko teg dañ ko teg loxo quoi donc loolu aussi humainement je pense que boo dee nit il faut le dire quoi. ok mm. bon loolu je pense que euh, incha allah ci question boobu noonu dinañ ci prononcé wu. parce que suñu avocat bu ñu waxee ñu war ci wax dinañ ci wax donc c'est toujours une affaire en cours euh, bëgguñu di dugg euh, dans les détails waaw très bientôt incha allah très bientôt parce que man euh, avant lii di am rek maa ngi doon waajal sama projet bu war a génn te incha allah gars yi dinañ ko gis dinañ gis ay video yu bëri donc dinañ gis aussi sama projet. merci mhm. beaucoup merci beaucoup. merci beaucoup le plaisir est pour moi.